doxantu yaa moom seen <laughs> Sidi na la ko yaa ko moom doxal la neex ah, ah nga ma ko ah. doxal la neex.